أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi ci kàttanu yàlla tey ñu ngi waroon def buluuxul maraam waaye ngir guddi ak yàkkamti ba ma jaawale téere yi waaye dafa mel ne dars bi téléchargé woon naa ko su fekkee hadisu iza stayqaza ahadukum min nawmihi fala yastansir salaatan فلينتظر ثلاثا بنين حديث بدي حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيثمه متفق عليه وعنه أيضا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ وهذا اللفظ مسلم وهذا لفظ مسلم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه لباسك mooy ñun ñëpp jàngoon nañu histoire sahaaba bu màgg bi tudd Abu Hurayra jàngoon nañ ci moom moom mooy kan kañ la dugg ci lislaam lan moo doon taxawaayam lan la liggéey ci lislaam nan la toppee woon ak yonent bi ñaata hadis la mokkal kañ la génn àdduna ak fan lañ ko suul ak bi muy génn àdduna ñaata at la amoon loolu jotoon nañ ko wax ci Abu Hurayra mbokk yi hadis yi nekk sunu kanam mooy ba tey mi ngi ci jàngale njàppal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak lan mooy sobe ak lan moodul sobe mu ne maanal hadis buñ jëlee maanaa hadis yi di ko firi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na iza stayqaza ahadakum kenn ci yéen bu yeewoo iza stayqaza bu yeewoo ahadakum kenn ci yéen min nawmihi ci nelawam kenn ci yéen bu nelawee mu daal di yeewu mu jóg lan lañ ko sant falyastansir na sarax ndiku salaatan ñetti yoon beneen hadis bi mu ne ida stayqaza ahadukum min nawmihi falyastansir salaatan fa inna shaytan yabiitu ala xaysumihi kenn ci yéen bu nelawee ba yeewu ne jël ndox dugal ko ci bakkanam génne ko na ko def ñetti yoon dafa mel ni dañ ko laaj lu tax ñu koy def mu ne ndax seytaane dafa fanaan ci seen bakkan bi fii mooy xaysuum fii seytaane fii la fanaan soo ko defee mu daal di génn soo yeewoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la la sant beneen hadis bi mu ne iza stayqaza ahadukum kenn ci yéen bu yeewoo bu jógee min nawmihi ci nelawam fala yaxmis yadahu bu mu jël ñaari loxo mi mu nuur ko fil inaay ci ndab hatta yaxsilaha talaatan ba mu raxas ko ñetti yoon eh dawal nga woon ma paaba dawal woon ma paaba yonent bi nee na kenn ci yéen bu yeewoo bul jël sa loxo nga dugal ko ci biir satala bi wala nga dugal ko ci biir siwo bi wala nga dugal ko ci biir bool bi wala nga dugal ko ci biir pot bi ba nga raxas loxo yi ñaata yoon ñetti yoon lu tax yonent bi nee na fa innahu laa yadri ayna baatat yadahu xamoo sa loxo yi fu ñu fanaan mi nga tëddee di nelaw ndax xam nga sa loxo yi fu ñu nekk baba toogal wétti li ñu tuuti waaye bàyyi nañ mu ne jëlee nañ ba tey ci Abu Hurayra mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam nee na boo yeewoo boo jógee kenn ci yéen bu jógee na fiiru na saraxliku ndax seytaan dafa fanaan ci ci bakkan bi mu ne maanal hadis lan mooy maanaa hadis bi mu ne liman istayqaza min nawmi min manaamihi ci képp koo xam ne jóg na ci nelawam laylan guddi as an yastansira mu sarax ndi ko nga jël ndox dugal ci bakkan yi salaasan ñetti yoon mu ne wa haza al istinsaar imma an yakuna qabla al wudu wa imma an yakuna fi al wudu loolu ngay jël ndox moom ngay jël di ko dugal sa bakkan kañ nga ko war a def mu ne balaa ngay jàpp wala ci bi ngay jàpp kama yaati fil ahkaam insha allah mu ne comme niñ ko nar a jàngalee ci atte yi di ñëw mu ne wa allala dalika alayhi salatu wasalaam yonent bi illa illa mooy chaque jour boo déggee illa mooy lan mooy illa illa mooy li tax ngay def lii lu tax ngay naan garab illa gi mooy damaa feebar li tax ngay lekk illa gi mooy dangaa bëgg a dund kon illa gi ñu wax ne li tax yonent bi ne jël leen ndox dugal ci seen bakkan sallallahu alayhi wa sallam mu ne bi anna shaytaan ndax shaytaane wa seytaanul jinn seytaane jinne yi ngeen di dégg almusaahibu lil ins jinne yooyu nga xam ne ñooy ànd ak nit yabiitu haada alal mawtin day day fanaan place boobu yonent bi wax wa huwa allazi huwa al anf mooy fii fii lay dugg daal fii tëdd mais loo moo tax yonent bi ne waaye woo da nga jël ndox nga dugal ko sa bakkan yi nga génne ko dugalaat génne ko dugalaat génne ko ba mu leer la ne dugg na nga génne mu ne lugatul xadis mu ne qawluhu isa stayqaza ay tayaqaza haza yakunu baada manaamihi soo déggee ñu ne yeew yeew kañ la ko nit di def kañ la nit di yeew kañ la nit di yeew kañ la nit di yeewu yeewu kan moo koy def yeewu kan moo koy def ku nelaw ki jóg ci nelaw la ñuy wax léegi yeewu na kon saa yoo jógee ci nelaw loolu mooy istiqaaz yeewu moo xam da ngaa nelaw guddi moo xam da ngaa nelaw bëccëg moo xam suba nga nelaw wala fi nga toog nga nelaw loolu la ñuy wax yeewu ah wala aw baada xafla fi luga yenn saa yi kat ñu ne nit ki kat yeewu na fekk na la wuloo na d'accord ngeen yenn saa yi ñu ne ah sa waa yeewu na de ay ne la wuloon dafa sàgganoon nekk ku am inconscience léegi nag conscience bi daal di dellusi lenn saa yi nga dégg ku ñu nax ba cëg ñu nax ko gars yi ñëw ci moom ne ko yow xanaa bi ñu lay neex da ngaa nelaw nelaw ma pourtant maa ngi xool waa ji de kon nelaw ñaari yeewu ñaari sens la am yenn saa yi nga jóg ci nelaw yeewu nga yenn saa yi nga am loo réere woon nga xam ko ñu ne yeewu nga ci yenn saa yi ñu nax la sax après kenn mënatu laa naxal ñu ne sax waaye léegi yeewu na de léeg-léeg ñu ne léegi waaye dafa yeewu yenn saa yi sax benn xale bu muus ñu ne xale bi xale bu yeewu la kon yeewu aussi mën naa nekk sans nelaw ok wa yakun aydan min nawmi layla wa nawmi nahaar jamaan mën naa nekk aussi ci ni yeewu guddi mën naa nekk aussi ci yeewu bëccëg mën naa nekk fa kullu manaamin baadahu yaqza nelaw boo gis am na yeewu nelaw boo gis rek am na yeewu wala ku nelaw rek di nga yeewu ba mu des ba mu des koo kay nelawul ku dee kay nelawul mën ngaa gis ku dee ñu ne day nelaw ok bu kenn dee ku dee moom nelaw daa dee almuraadu bi nawmi huna nee na buñ delloo ci hadis bi li ñu nam wax ci nelaw fii mooy nawmul layla dunu nawmu nahaar nelaw guddi lañu wax waxuñu nelaw bëccëg li annahu qaala fi aaxiri hadis lan moo nuy won ni nelaw yi yonent bi wax ci hadis bi ay nelaw yi guddi la du nelaw yi bëccëg lan moo ñu koy jàngal ndax nee na seytaane day fanaan ci seen ci seen bakkan kon loolu mooy wan ne du bëccëg ndax bu doon nelaw yi bëccëg la yeneen bi du ne day fanaan ndax fanaan luñ ci xam guddi kon hadis bi macha allah moo tax boroom xam-xam yal na leen yàlla fayal danoo dégg danoo dégg benn boroom xam-xam danoon laaj benn laaj mu ne lu tax liir ñu koy solal kawas ku ko tontu am 500. liir lu tax ñu koy solal kawas. seddaay bi. liir lu tax ñu koy solal kawas. ku ko tontu am téeméer. ay ku ko tontu am montre. pour tànk yi. xaw nga ko jege demee romb. pour mu bañ a gaañu. ku ko tontu rek incha allah paa yi montre. xale yi téeméer waaw bàyyi naa ko noonu fii ba fii ba ku ko mës a tontu rek ma jox la kado fii ba bàyyi montre la montre xale yi téeméer borom xam-xam yi jàmbaar la yàlla leen yàlla fay mu ne wal buyutatu takunu fi leeli fanaan moom saa yoo ko déggee mooy guddi fa yuqaalu baata fi leeli wa zalla fi nahaari baata dañ naan fanaan na zalla ñu ne yendu na bëccëg ndax ne zawal la ñuy wax zawal mu ne qawluhu fal yastansir al istinsaar aslul istifaal takunu li talab yaani al gaalib fi lluga istifaal takunu li talab mu ne baatu istinsaar cosaanam dafa am lu muy sàkku ci yow te kunu talab dañ la bëgg a wax defal nangam loolu mooy istinsaar min min nasr walakin huna waaye fii laysa almuraadu minha talab fii nag sàkku ci yow dara hada shay wa innama almuraadu alghalib fi nasri li anna min awjahi lluga annahu yuzaadu sin wa ta fi lfili yakunu saddan lii moom mu leen di wax mbirum mbirum naxwu la waaye liñ ci bëgg a jàngale fii baat bi mooy yonent bi moo la jox ndigal nga jël ndox xëcc ko ak sa bakkan ndox mi doo ko dugale sa loxo waaye sa loxo nga koy tànkee waaye bi mu jibee bakkan yi lan moo koy dugal ci biir bakkan bi bakkan bi ci boppam moo koy dugal nan la koy dugalee da koy xëcc mu dugg ci bakkan bi nga génne ko xëccaat génne ko dug tegaat xëccaat mu daal di dugg nga def ko ñaata yoon ñetti yoon mbokk yi mu ne min ahkaamil hadis bu ñëwee ci àtte hadis bi awalan li ci njëkk mooy xal alxadis alal amri bil istinsaar salaasan hadis bi lan la digle nañ ko def ñetti yoon dana xëcc ndox ak sunu bakkan ñetti yoon kan la ko sant liman naama laylan képp ku nelaw guddi fastay xasamu yeewu wa hada al amru ixtalafa fihi al ulama mbir mi nag mooy yeewu jël ndox def ko ci sa loxo daal di koy xëcc ak sa bakkan génnewaat ko boroom xam-xam yi wuute nañ ci lan lañu wuute hal lil wujub am lil istihbaab ndax farata la wala dañ koo sopp boroom xam-xam yi chaque jour su yàlla waxee wala yonent wax ñoom ñi dégg diine bi dañuy indil baat yi indil ñu maanaa yi firil ñu léeg-léeg ñii ne lii kat farata la ndax lii moo tax farata la ñii ne déedéet lii du farata ndax bu doon farata nangam ak nangam ak nangam moo tax mbir mi tamit ñoom wuute nañ ci ñii ne xallil wujub ndax dafa war ñii ne am lil istihbaab fa qaala baadu ahlul ilmi lenn ci borom xam-xam ñu ne innahu lil wujub dafa war ay yéen fu ngeen ko teg yéen ñi ne dafa war te lépp loo dégg ci islaam ñu ne dafa war mooy farata la soo ko deful rek mbugal fekk la ci nga am bàkkaar soo ko deful mbugal fekk la ci soo ko bàyyee am bàkkaar su fekkee dañ ko war a bàyyi danga ko war a bàyyi bu fekkee dañ ko war a def danga ko war a def ñu ne li ann zahirul amr bil istinsaar salaasa ñu ne ndax li feeñ mooy zahir li anna zahira ndax li feeñ al amri ci mbir mi awil asl wala ci cosaan fil amri ci mbir mi mooy al wujub lislaam jaamu yàlla yépp li ciy cosaan mooy farata la al wujub ba texte ñëw ne la déedéet al wujub mu ne wa amarana huna moom la ñu digal fii fil amri al wujub wa amarana huna bil istinsaar salaasan mu ne fii lan la ñu digal ñu fiiru ñetti yoon mooy ñu jël ndox dugal ko sunu bakkan mu ne wal amru nag ndigal chaque jour boo déggee ndigal rek da ngay dégg Sénégal ñu ne ndigal duñ ci wax jëfe ndigal jëfe rek doo dégg ñu naan taalibe taalibe ndigal taalibe ndigal jëfe rek mooy si la sëriñ bi waxee jógal fekkil say morom mbokk yi mu ne wala saarifa lahu an zalik kam lii mbir mi yonent wax ne ku yeewu na nga jël ndox sa loxo def ko xëcc ko ak sa bakkan ñetti yoon ndax dañoo jàng lu ko dindi dañoo gis beneen texte ne déedéet bu leen ko def moo tax ñu ne comme amul saarif lu ko dindi ci ndigal li kon dafa war wal qawlu saani ñaareelu wax bi kon dégg ngeen ñee fi ñu ko teg ñi ne dafa war dégg ngeen fi ñu ko teg fan lañ ko teg ñu ne amul texte bu wuuteeg moom bu ko dindi ñii ñu ne an al istinsaar laysat lil wujub ñu ne sarax ndi du farata ñu ne lu tax ñu ne mustahab la dañ koo sopp ñu ne leen lu tax ñu ne wa wiju dalala alal istihbaabi aw wajjaha dalalatul hadis alal istihbaab ñu ne su ngeen déggee baati hadis bi ni ko yonent bi waxee li muy tegtale joxe dalil mooy dañ koo sopp ala annahu illa ilalihi bi anna seytaan yabiitu ala xaysumihi ñu ne illa gi mooy seytaane li muy fanaan ci bakkanu nit ki loolu la te wa seytaan fi buyutihi haza mimma yasal maru li ibaadihi lakin laysa min jihati najas ñu ne seytaan fanaan bi muy fanaan ci bakkanu nit da koy soril jaam soral rek da koy soril waaye nekkul sobe la comme du sobe du farata xëy na bu doon sobe sax mu nekk farata waaye du sobe ñu ne laysa min jihati najas fa yu tahir nekkul ne sobe la mu laab wala min jihati amrin maqulil maana nekkul tamit mbir moo xam ne dañ koo fas ci maana bu dëgër këj fa yasa fi tadhir mu dox pour laabal bakkan bi wa naqiya ak mu setal ko min wu ci moom wali haza ñu ne ñoom looloo tax àllala bi qawlihi ñoom ñu daal di tegtaloo ne fa inna sheytaan yabiitu ala xaysumihi sheytaane moo fanaan ci bakkani moo tax mu def mbir yi mbokk yi dal ala anna al amru lil istihbaab wa raajix borom xam-xam yi nee nañ li ñu tarjix tarjix mooy lan li ñu lëngal chaque jour suñu la waxee benn masala ñu ne ñii nee nañ lii ñii nee nañ lii léegi nag dañuy ñëw tënk ko ñu ne daal li ñu tarjiix li ñu tënk mooy mbir mi lil istihbaab la dañ koo sopp loolooy li ëpp mu ne lu tax min qawlay ni ñaari wax al awal bu njëkk bi li anna al asl fi l amri kazalika wala saarifa lahu wa ma zakarahu min alsaarif gayru maaquli lmaana mu ne war raajix min alqawlayni ñaari wax yooyu bu ñu ñëw di lëngal ci ñaari wax yooyu liñ ci lëngal mu ne huwa al awal mooy bu njëkk bi bu ñu boolee waxuñu mujj ñi ak waxuñu njëkk ñi ñi la ñoom lan lañ waxoon dafa far farata la ñii ñu ne dañ ko sopp du farata waaye bu ñu boolee ñoom ñaar seen wax ji ar raajix mooy min al qawlayni ci ñaari wax yi ban la huwa al awal mooy bu njëkk bi ñi ne farata la ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo yor dëgg gi lu tax ndax dañoo joxe ndigal ne def leen fal yastansir la yonent bi wax defal ndax defal googu mu wax am na lu ko dindi comme amul lu ko dindi nag kon dafay war mu ne kon loolooy nañ jàpp loolu mooy farata la yeewu jël ndox def ci sa bakkan mu ne walam yawut aksar ahlul ilmi awil jumhur fi sawab li ëpp ci ñoom ci ñi ñuy lim ci borom xam-xam yi ñoom ñëpp ci loolu lañ d'accord saaniyan mu ne ñaareel bi dalal hadis ala anna al istinsaar yakunu baada al istiqaaz mbokk yi hadis bi bu suñ ko jàngee ñu dégg ko kañ la ñuy jël ndox di ko def suñu bakkan kañ bu ñu yeewoo bu ñu yeewoo iza stayqaza ahadukum min manaami kenn ci yéen bu yeewoo ci nelawam loolu la ñuy wax fal yastansir salaasan mu ne waaw léegi hal haza al istinsaar qabla al wudu aw baada al wudu ndax balaa ngay jàpp la wala bi ngay jàpp wala boo jàppee ba pare wahal ida lam yakun yuridul wudu yajibu alayhi al istinsaar mutlaqan ndax soo yeewoo buggoo jàpp ndax war na ci yow nga def ko ba faw alzahir min addalal alxadis anna al istinsaar yakunu maa al wudu dégg ngeen wax bi ñaata laaj la laaj ndax yeewu jël ndox def ci sa bakkan balaa ngay jàpp la wala boo jàppee ba pare wala ci biir njàpp wi ban la ci ban lañ tontu ñu ne boobu moo la ci biir njàpp li yeewu nga yaa ngi jàpp raxas nga sa loxo ñetti yoon aha foofu lañ la wax nag léegi comme yaa ngi def bakkan foofu lañ la sant nag léegi nag nga jël ndox mi def ci bakkan yi génne def ci génne dañu bëgg sax surul ci koor nga ëppal ko ba mu ba nga sentir ne ndox mi dugg na ci sa bakkan yi dugg na ci sa bopp bi bu dee weeru koor nag bëgguñu nga def ko ndax lan yàq sa koor waaye bu dul koor nag nan ko def kon kañ lañ ko bëgg ci jamono azahir mu ne li feeñ min dalalatil hadis ci tegtalu hadis bi an al istinsaar yakunu ma al wudu di jël ndox def ci bakkan day nekk ci jamono bi ngay jàpp imma qablahu aw fi asta asnaa al istinsaar wa dalalat zalik ala anna al ghalib fi halati man yastayqiz laylan min manamihi annahu yastayqiz lissalah mu ne li ëpp ci ñiy nelaw di yeewu guddi ñi ëpp ci nit ñi ñi yeewu guddi bu ñu yeewoo dafa am lu ñu bëgg lan la ñu bëgg julli ki yeewu guddi bëgg julli lu muy def balaa muy julli day jàpp kon kooku lañu wax ne saa yoo yeewoo guddi wala nga yeewu fajar ngay jàpp jëlal ndox def ko ci sa bakkan ñetti yoon ñetteelu wax ci wa huwa al axyaru mooy li ñu tànn dalal hadis ala anna musaahibatu shaytaan wa mu ne liñ dégg dégg ci hadis bi ñetteelu wax bi mooy seytaane day ànd ak nit xam ngeen hadis yi jàngale ne seytaane dafa ànd ak nit dafa bëri bii bokk na ci am na beneen lu yonent bi wax ci moom fa inna seytaan tarjala ibnu adam majara dam seytaane day daw ci yaramu ni ni deret bi di dawee beneen beneen hadis bu ne seytaane day topp nit yonent bi boo nee boo nelawee seytaan dina la takk ñetti takk-takk boo yeewoo ci guddi gi nga tudd yàlla benn bi ne tif dagg boo tuddee yàlla mu dagg nga jàpp beneen bi ne tif dagg nga julli fajar beneen bi ne tif dagg kon boo ye- boo yeewoo tuddoo yàlla nag jàppoo julliwoo mun a nga nekk yeewu ne kaslaan ku tayal sa yaram bi yëpp dee di metti nga yaa fuuf si yembare parce que seytaane moo lay yeewu kon ndeke di yeewu di tudd yàlla day tekki tekki seytaane takk yim la takk beneen mooy nit lu muy def seytaane day ñëw ñaari seytaane daje nañ benn seytaane bi am doole doo nga ponkal ngan la tol comme Bombardier beneen seytaane bi yooy sew ruuj comme banta bale seytaane bu pataa bi mu ne seytaane bu ndaw bi yow lu tax nga sew ruuj mu ne man ki may àndal lu muy def rek day tudd yàlla du ma mun du ma mun a bokk suy lekk day tudd yàlla ma daw suy naan day tudd yàlla lu muy def rek day tudd yàlla ma daw mu ne gis nga ni ma ni ma yooyee ku pataaki ne ay man de ki ma àndal moom du wax dara day suy lekk day day commencé rek man tam ma ñëw toog di lekk comme moom moo tax gis nga ni ma pataawee moo tax looy def waxoo ci bismillah tuddoo yàlla seytaan day ñëw beneen mooy yonent bi nee na booy séeg sa soxna waxal allahuma jannib na shaytaan wa jannibi shaytaan ma razaqtana soo waxee loolu ci ñaan bi sëy bi bu ci doom di sosu seytaane du ko laal kon seytaane daf ñu topp seytaane dafa ànd ak ñun di dugg ci sunu biir kër yi bañ nañ ko ba ne ci biir duus yi lay nekk yonent bi ne koy dugg ci duus waxal allahuma inni aoudu bika min alxubusi wal xabaais yal na ma yàlla musal ci seytaane yi góor yi ak seytaane yi jigéen yi kon hadis bi day wane ne seytaan daf ñu topp wa kullu baidin anil xayri mimma yambagi ala al insaan an yajtahida fi tanzihi nafsihi anhu képp koo xam ne da ngaa sori lu baax seytaane da lay topp mu ne loolu tax dina war ci nit mu góor-góorlu ci boppam ba fexe seytaane sori ko yow yaay soril sa bopp seytaan mais kenn mënul fexe seytaane sori la yow bu fekk ah yow yaa bëgg seytaane topp la benn sëriñ dafa dégg benn taalibe muy jàng alxuraan mu ne audu billahi min ashaytan rajim mu ne ko bàyyi liifam Hmm? dégg leen wax ki dégg leen wax bi de ñi naan audu billahi min ashaytan rajim lu ñu bëgg lu muy tekki audu billahi min ashaytan rajim lu muy tekki mooy yàlla na ma yàlla musal waaw sëriñ bi nee na bàyyi lii fa est-ce que boo jëlee portable yi nit nga bokk ko ba pare ngay dem waa ji topp la dalay bàyyi ah boo jëlee kalpe nit waa ji leer na yaa jël sama kalpe waa ji dalay toppal dalay bàyyi wuy leen ma du tax mu lay topp yaa jël kalpeem waaw yow boo jëlee fa seytaane ba pare naan ko seytaane bàyyi ma de nga fekk sàngara nga jël di yóbbu sa kër di naan ba pare naan aoudu billahi min ashaitan rajim di naan nga dem ca si si bitig bi jënd paquet cigarette ba pare sax benn na aoudu billahi min ashaitan rajim taal toog di xëcc ba pare naan aoudu billahi min ashaitan rajim dana ñaan musal seytaane seytaane dina la bàyyi yow yaa jëlee fu du la bàyyi képp ku ànd ak seytaane soo waxee aoudu billahi min ashaitan rajim daf seytaane day toog dina ree rek yaa ngi biir kër seytaane ba pare nga ne awsu billahi mina shaytaan rajim moo tax sëriñ bi bi mu déggee taalib mu ne awsu billahi mina shaytaan rajim mu ne bàyyi leen yëfam rek bu ngeen bàyyi yëfam rek mu bàyyi leen jeex na seytaane boo laalul yëfam du la laal lan mooy yëfam mooy li yàlla tere saa yoo demee ci li yàlla tere nga nekk fa pare naa ne awsu billahi mina shaytaan rajim benn borom xam-xam bu mag gars yi dañ ko ne waaw lu tax ñun bu ñu ñaanee yàlla yàlla moo ne ñaan leen ma ma may leen ñuy ñaan yàlla bañ ñoo may lu tax mu ne ah xam ngeen seytaane seen noonu la ngeen def ko xarit lan lañ yàlla wax ci alquran seytaane innahu lakum aduun mubin inna seytaana lakum aduun fattaxisuhu aduwa yàlla ne seytaane seen noonu la na ngeen ko noonu dégg ngeen gaa yi ñu ne waaw ñu wàcc ci suuf ñu ne ah bàyyi leen ñu xaritoo ak moom waay ndax moom moo yor yu neex yi moom moo yor yu xumb yi nañ dem ànd ak moom kon seytaane hadis bi daf ñuy wan ne seytaane mi ngi ànd ak nun din topp waaye lan moo tax mu topp pour yàqal nu waaye ñun ñoo war a bañ lépp lu yonent bi wax su ko nit defee seytaane ba ko nga def ko loolu mooy ñetteel bi mu ne wal mubalagatu fi ibaadihi waruñu waruñu sax di def yu ndaw pour seytaane bàyyi déedéet lu ndaw déedéet lan lañu war def lu ngand ibla forson pour seytaane banu parce que seytaane képp ku mu topp doo jaamu yàlla sa lépp la lay yàqal boo nekkee jàkk ci sax da lay topp boo ay jàng alxuraan mu ñëw toog lépp looy def mu ñëw seytaane dugg na ci jàkk ji mu fekk benn waay di nelaw boroom xam-xam bi di nelaw ku xamul dara ki di julli seytaane jël uppukaay bi di upp ko borom xam-xam bi ñu ne ko waaw yow lu tax ngay upp borom xam-xam bi nga bàyyi ki xamul dara muy julli ñoom ñaar kan la waroon yàqal kiy julli ak kuy nelaw kiy julli la waroon yàqal waaw waaw kiy julli la war a yàqal ndax kiy julli mooy jaamu yàlla ñu ne ko yow lu la yàqaloo ki ngay ngay ngay ngay upp kii pour mu gën a nelaw mu ne kii di julli xamul dara te nelaw moom da koy defar pour du yeewu mu ne kii di nelaw yeewoo rek day gis kii li muy def xam ne du noonu mu ne ko eh ni nga taxawee du noonu de kaabar bi du noonu de noonu de kenn du jànge noonu alxuraan bi de nii lañ koy jànge xam nga kon da koy defar mu ne loolu moo tax ma koy upp ndax mu bañ a yeew ndax kii moom nekk foofu di di tërëx tërëxi rek moo tax jaamu yàlla te xamoo baaxul moo tax ñu ne nawmul aalim afdal min ibadati al jahil nelaw boroom xam-xam moo gën ku xamul dara kuy jaamu yàlla boroom xam-xam buy nelaw ay nelawam moo gën ku xamul dara kuy jaamu yàlla ndax ki jaamu yàlla moom day day dex tërëx tërëxi rek dégg mu ne fasaadun kabirun alimun mutahatti akbaru minhuma jahilun mutamassik yàqute gu rëy boroom xam-xam buy def lu ko neex day yàq rek lan moo tax boroom xam-xam buy def lu ko neex nit ñi dañ koy xool di yàq lu tax ndax yow a yow lu tax ngay naan sàngara nga ne waaw sama sëriñ day naan sàngara bu baaxoo bu bonoon kat dina ko bàyyi kon dara nekku ci waaye da ngay déglu musique ah sama sëriñ di dem soirée moom sax gisoo diw moom mooy moom mooy moo koy woyal wala fi dañuy woy sëriñ yi woykat bu nekk am nga sëriñ mbër yi am nañ sëriñ wala da ngay dégg bi ma santee yàlla bi ma santee sama ndey ak sama baay ak sama sëriñ ñu ne kuy sa sëriñ ah mu ne daal di tudd turu sëriñ bi sëriñ bi bi mu déggee ne am na taalibe mbër lu ko waroon mooy mu woo ko ne ko mbër bokkul ci islaam génnal génn ci ba set ndax la boo ci génnul man bu dama nekkatuma sa sëriñ de bu ma waxati ci rajo yi maa si sëriñ ah waaye déggoo fi benn sëriñ bu weddi benn waaye nee na su mbër bi ñëwee seeti sëriñ bi taalibe beneen borom xam-xam ñoo seeti sëriñ bi mbër mi la ñuy njëkk a recevoir te kenn du dem sax ci sëñ bi naan ko sëñ bi ñëw na ñu daw ñëw ba pare wóor ko ba ne ne daan ne nee na sëñ bi bu génnee day jàpp ci loxo bi daan ne xam ngeen diw xam ngeen diw mu ngi nii kii la kii mooy diw gis ngeen ko sama taalibe la moom laa doon gunge nii ba léegi mu ne ko bàyyil ba am na benn waay bu ñëwoon benn sëriñ bu baax ndeysaan benn mbër ñëw ci moom ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ku ma bëreel rek daaneel la ku ma bëreel daaneel la mu ne ko abo mu ne waaw mu ne ko waaw jógal jógal taxaw mu taxaw sëriñ bi ubbi fenêtre yi mu ne ko xoolal lii mu ne lii lan la armée lii mu ne waaw mu ne léegi loo bëgg mu ne mbër mi daaneel ñi nag boo dajeek moom mbaa di diñ ko daan waaw sëñ bi kay kay kay kay mënuma ko daan armée yi la ko wan ne ko mbër mi daaneel ñi nag boo dajee ak moom nag waaw ki kay mun moo ko daan ki daan ñi ki daan ñi ñëpp ki kay xam nga ni moom ma mën mu ne kon nag préparé ko kooku bi mu ñëwee la tekki ngem ba mu dem teg dellu ci jaamu yàlla waaye fii dangay ñëw sëñ bi ne la bismillah taala leen loxo yi ñu ñaanal ko du la wax dëgg wala ñu am problème kon seytaan def ñoo topp pour yàqal nanu xam loolu bu baax pour ñu sonn aussi pour mu soriñu wa haza zahir mi ann al istinsaar li ibaadi seytaan looloo feeñ ci hadis bi li feeñ ci wax ji mooy da nga koy def pour lan pour seytaane bàyyi la pour seytaane sori la daw la an hazal mawdi mu daal di génn ci place boobu nga xam ne yebiitu fii fa la daan fanaan nga daax ko mu daw mu ne looloo tax mbokk yi maa yazkuruhu bi annahu yajtahidu fi dafi asharu seytaani aljinn wa muqarabatihi lahu wa taasiruhu alayhi wa kazalika yajtahid fi dafi asharu seytaani alins ah wa tajnibihi shar wa taqribihi suu lil muslim lii lépp ay mbir la yoo xam ne daal ci boroom xam-xam yi ñu dimbali firil ñu xaddis bi bañ ko gën ko dégg mooy dañu ne wax bu seytaane dafay fanaan ci sa bakkan kon bëgguñ ci lenn lu dul seytaane sori la bëgguñ ci lu dul nga fexe seytaane sori la ak effort boo mun a def ba seytaane sori la na nga ko def ndax feeg yaa ngi ànd ak seytaane mën a jaamu sa borom subhanahu wa taala mbokk yi mu ne qaala fi lxadis allazi baadahu am na beneen xadis bu nekk ci suuf bu mu ne iza stayqaza ahadukum min nawmihi fala yaxmis yadahu fil ina hatta yaxsiluha salasan fa innahu yadri ayna batat yadahu mu ne beneen xadis bu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen bu jógee li mu namm ci bu jógee mooy su yeewoo ci ay nelawam bu mu jël ay loxoom rek dugal ko ci siwo yeewu nga root nañ paan bi ba mu fees nga jël sa ñaari loxo rek ne ko dabaj ci biir paan bi yàq nga ndox mi comme ni ngeen di def fii yow fekk ñu root barigo yi yenn saa yi nga gis ku ne ana pot pot bi yéex waxuma la loxo mi muy jël satala bi ne ko dabaj ci biir barigo bi te satala yi xam ngeen fu muy dugg ragal leen yàlla ragal leen seen boroom yàq baaxul nga bàyyi noonu rek léegi nga dem sa yoon yàq nga ndox mi nga dem noppi wala ngay saay saay soo xam ne day ñëw ci satala yi saw ci saw ci satala bi cur fekk satala yi raa nga saw ci yëpp nag ba pare dem taxaw fee rek di ree rek yàllaa ngi lay gis yàllaa ngi leen di gis de kenn gisul yàlla ngi lay gis ma yàlla jàpp na loolu kenn du ko def ndax nit ñi dañuy jaamu yàlla suñuy jaamu yàlla dañoo war a war a set ay satala ay siwo ay paan ay bërigo ah kenn du ci saw kenn du ko jël di ko dugal ci kenn du jël satala di ko dugal ci biir bërigo kenn du jël sa ñaari loxo nga koy dugal ci biir ci biir bërigo bi boo yeewoo wala ci siwo bi raxasal sa loxo yi ba mu set nga doog a jàpp pot bi xam nga lu tax yonent bi ne boo yeewoo balaa ngay jël sa loxo di ko dugal ci biir na nga ko raxas ñetti yoon xam ngeen lu tax bi nga tëddee di nelaw guddi gi sa loxo yi xam nga fu ñu dugg kan moo xam loxo mi fi mu dugg ah ku ko xam xamoo ko xam nga sa loxo yi fu ñu fanaan moo tax yonent bi ne bu kenn def loolu boo yeewoo mu ne maana alhadis anna nabi sallallahu alayhi wa sallam amara yonent bi digle na bi anna ahadana naka kenn ci ñun ida stayqaza bu jógee min nawmihi ci nelawam fala yaxmis yadahu bu mu nuur ay loxoom fil inaa yi ci ndab nelaw nga yeewu nga nga fekk paan baa ngi nii ñu teg nga xool xool droite xool gauche gisoo pot bul jël sa loxo di ko tànqe ndox mi de mukk bul jël sa ñaar loxo dugal ko encore ci ndox mi lu dul da ngaa raxas loxo yi ba mu set ndax sa loxo yi bi nga tëddee di nelaw ñu bëri fii ci ñun bu ñuy nelaw dañuy jàpp seen awra waxuma sax awra waaye dañuy jël seen loxo di ko dugal ci seen ginnaaw ñu bëri ci doomu aadama yi loolu ko yàlla dimbali te soo nelawee borom xam-xam yi nee nañ bët ngeen baal ma bët mooy garde taat bët mooy gardien taat ñu ne gardien bu nelawee lu ngeen ci xam benn gardien dafa yeewu dem ci ki muy gaareel ne ko patron mu ne ah mu ne démb de démb de li ma la géntal mu ne ko dàq naa la dàq naa la mu ne ya diggu li mu di mu ne gént gént mu ne mu ne ma ne dàq naa la laa wax lu tax mu dàq ko ah dafa nelaw te gardien wóorul nelaw moom dafa yaakaar ne muus na patron li ma la géntal mu ne ko dàq naa la ya ñu sax dégg na lu mu wax mu ne gént na kan mooy gént gardien du nelaw ku dàq naa la aca jël sa bagage ah kon yow it bi nga yeewoo xamoo sa loxo yi fu ñu fanaan xamoo foo ko dugal xamoo lu ci tax kon bul ko dugal ci ndox mi di yàq ndox mi gis nga lii gis nga ñaari xadiis wallahi daf ñuy wone lislaam dara gën ko set ci àdduna lii yonent bi wax nii surtout xadis bu mujj bii boo nelawee ba yow bul jël sa loxo dugal ko ci ndox dugal ko ci paan wala ci bool wala bul jàpp pot ndaal bi ak sa loxo ba pare ñu dugal pot ndaal bi ci biir lii xam ngeen ne xaw ma lan moo ko bañ de waaye xel nangu na ko wala ndax xam nga yow bi nga tëddee sa loxo yi xamoo fu mu fu mu fanaan mu ne lii ndigal la bu yonent bi joxe mu ne yaa nii indal wutu indahu inaun fiihi danga am ndab loo xam ne ndox mi ngay jàppee ci la nekk bul yàkkamti ba dugal sa ñaari loxo fil ina wa naha an zalika yonent bi daal lay tere loolu wa qaala hatta yaxsiluha salaasan ba mu raxas ko ñetti yoon yaani hatta yakunu baalig fi xasliha ba nga raxas ko ba mu leer la ne set na surtout léegi am nañ ay produits yoo xam ne dañ koy raxase suñu loxo yi am na saabu am na kotol am na madaar am na omo am na am na am na boo yeewoo toilette yu bëree ba dañ fay teg saabu ah balaa ngay def dara nga jël sal saabu bi raxas sa ñaari loxo yi ba mu set après nag léegi mun ngaa continuer jàpp nga continuer wala looy def nga def ko waaye daal mooy te ndikul daal di yeewu rek daal di jël sa ñaari loxo daal di koy def ci ndab loo xam ne dafa ubbeeku loolu dañ koo tere sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ko tere mu ne qad yakunu yadahu baatat fi mawdiin fihi najas amaana sa ñaari loxo yi bi ngay tëdd fi ñu fanaan dafa am sobe nelaw sa njàpp yàqu na benn borom xam-xam dañ ko ne benn waay ne ko man de damaa yoroon kurus di wird bi ma defee juróom ñaar fukki astaghfirullah ak nangam daal ca la kurus gi wadd léegi nag xamatuma ban per laay jàpp mu ne ko léegi waruñoo xool per ba ngay jàpp ak kurus gi ndax da nga koy jilaat waruñoo xool loolu de mu ne lu ko waddal mu ne dama dama dama nelaw dama toog nii di wirdi rek ndeke nelaw naa kurus gi wadd léegi nag ban per laay jàppaat mu ne waruñoo xool kurus gi waruñoo xool per bi lu ñu war a xool njàpp mi très bien mu ne ko sa njàpp mi lañu war a xool ndax yaa ngi yaa ngi wird yaa ngi njàpp toog di wird di wird ba nga nelaw ku- kurus gi ne la rët ku la wax ne bi nga fi nelawee amoo am nga loo fi def ah wóor na bi nga fi nelawee nga gëmmintu fi tuuti ndax wóor na ne amoo loo fi def wóoru di kon njàpp mi lañ war a xool kon yow mi tamit bi nelaw yeewu bul jël sa loxo dugal ci ndox ndax xamoo loxo yi fu ñu fanaan xamoo ndax loxo yi dafa nekkoon place bu am sobe kon lii mbokk yi mooy njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii mooy atte xadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ci ku yeewu min ahkaamil xadis fihi nahi an xamsil yadi fil ina nee na bokk na ci njàng yi at tere nañ tere nañ ku jël ay loxoom daal di koy sóob ci biir ndox ndab loo xam ne ndax li dafa yaatu qabla xasliha salaasan balaa mu koy raxas ñett wa haada nahyu hal lil tahrim aw lil karaha mu ne qawlaani li ahlil ilmi tere googu ndax dafa araam wala aret sib la mu ne zahaba ila tahrim wa minhum man zahaba ila al karaha am na ñu ne dafa araam am na ñu ne mu ne amma tahrim falahu dalilun zahir ñu ne araam na am nañ dektal bu leer ban lan mooy seen dektal ndax yonent bi moo ko tere li anna nahyi ani xamsin nahyu nabi nahyun mu ne wan nahyu nag ida lam yusaarifu saarif fa wali tahrim lépp lu ñëw di tere su fekkee amul lu ko contre loolu dafa araam ndax tere gi nag am na lu ko tere amul lu ñëw di ko contre wal qawlu saani annahu karahiya ñu ne lii dañ ko sib qaalu wasaarifu binnahyi min altahrim ila alkaraha annahu adabun ñu ne lii daal teggin la rek yontu wax ne boo yewoo jëlal sa ñaari loxo raxas ko ñetti yoon balaa nga koy dugal ñu ne wal adabu min alsawaarif wa najasat li ajliha nahyun naha an zalika sallallahu alayhi wa sallam ñu ne teggin dafa bokk ci liy contre benn wax day ñëw teggin daal di ñëw daal di koy contre su ko defee ñu ne am na lu ko soppi waaye mbokk yi mu ne wal azhar min al qawlayni ñaar yi ñoomi tamit li ciy lëy li ci yay mooy asaani mooy ñaareelu wax ci wa huwa anna haza min jihatin yaani al amru bi gasli al yadayni wa adami idxaalihima lil inaai jihatul istihbab mu ne lii dañ koo sopp wa nahyu an xam an xamsil yadayni fil ina jihatul kirahiya mu ne dañ ko sib dañ ko sib nekkul lu araam dañ ko sib rek mu ne li anna al illa alayhi al hadis maznunun xayru mutaxaqiq li tax ñii ñu ne warul ndax dafa am sikki sàkk te jaamu yàlla du am sikki sàkk lan mooy sikki sàkk gi xamoo fu sa loxo fanaan sikki sàkk gaangoog bu la leeroon ne loxo yi moom dafa fanaan ci sobe nooy def loolu leer na bii nag lu tax moom kon hadis bi ñu njëkkoon jàng boobu lan lañ fa yeyal la fa lan la fa borom xam-xam yi wax lu fa yey ci ñaari borom xam-xam yi doon wax ñii ñu ne war la ñii ne warul foofu dafa war hadis bu mujj bi dañ ko sib yeew jël say loxo sëpp ko ci ndox te ndab li yaatu loolu bëgguñu ko dañ ko sib nekkul tahrim kon mbokk yi li moo doon dars bi ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu fayal ñu borom xam-xame ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu njumte yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu